wa sallallahu ala sayidina bi ngàlla xeeraw maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuuba ak ñoñam ñaati murid bi ngàlla xerew maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuuba ak ñoñam ñaati du man di tey ci wax leen gaayi bamba ya ndax ñooñaa ma doy ñooy samay roy teef fi tuubaate xam seeni jaar-jaar te koy xamlee di yoon wi ma saf def naa ko aw sas fi tuubaa man ba siirooti yàlla ma def géwalub seex bamba ak ña dar may xool ko cay dalu sas tey bay ma kañ kooti woy naa seex bamba ak doomam ya tey ma mébët ne ca seex sa ku baaxoon way ko ngeen xamati te jooja sax deful kuñ réere naa ku mu doon turam wasiiw na fi dunyaa dun ko dee ak bokk xam na ko lislaam xam ko yoon wi itam xam nañ sëriñ dëru ngir pasteef ca fam féete jàmbaar la as la tey muslim jullit bu dëggal daarul asan njaay murit saadix la waxati yàllaa ko tànnal mu bëggu baax te bokk fu baax newoon fi cig baax ba dem cig baax dëggal maati rafet na jikko te tànnub juddu bokk fu rëy feeñul ci askan wu ñuy musloo ka xeebaate njare maamam satub maam dem ba njaay njare kañ xam ci ak baax ak i kiimaan yu jombaate maamam ya diine ngorey seen bàkku néegi cosaan lu jiitu seex bamba feeñ lislaam lañuy noote ñoo toqi daarul asan nampal ko meenu ngërëm bam ne jalañ lañ ko sóob seen yoon wu baax waati baayam bu baax ba turam waay seex muhammadu njaay ñu naa ko moor faati saar laaj leen أو ألف لام را ألونك ميم جيف بو أج نورا ألف لام را ها يا ميم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sëriñ bi nee na mi ngi nii mboolem ku fi teew di jiital ci nuyoo bi nag sunu kilifa gu tedd gi di sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom Cheikh Mouhamadou Fadal moom Xaadim rasuul andak ak doom ju bax ji di serigne Modou Mbacke ñi ngi nuyu ñep bayiwuñ kenn di yëkëti kàddu yi cant rek ak ngërëm jëme ko ci sëriñ mustapha mii ndax lii mu def kat yitte la ju rëy rëy rëy ku ne xam na ne ci weeru koor la ñu nekk ku ne xam ne itam yitte yi bari na waaye dafa mel na ab teewaayam ci jataay bi daf koy jiital ci ay yitteem moom loolu nag li ko waral fii nu nekk tey daa bokk ci kilifteefam muy barab bii mu boot ñi fi nekk ñépp kii fi taxawal daara ji tey di sëriñ Modou Baara Ndiaye di lépp ci moom sëriñ Moustapha di lépp ci moom di nijaayam di baayam di sëriñam di lépp ci moom kon nag taxawaay bi def na ko ngir loolu waaye nag def na ko ngir leneen loo xam ne moo féete kaw loolu mooy bu ñu taxawal barab boo xam ne dañuy wax ne barabu alquran la loola dañ koy jàppe rek liggéeyub sëriñ Touba te moom sëriñ Moustapha mii ku ko xam xam ne yi tey sëriñ bi moom la jiital ci ay yitteem lépp lu muy def wala mu di ko wax sëriñ Tuubaa rekk la ca jiital fu ca sëriñ bi yamit fa la ca yem kërug alxuraan nag sëriñ bi amul lu ko ëpp moom rekk la am sax ndax moo waxal boppam ne كان كنز الكتاب والحديث والأرب لا جمع فضة ولا جمع ذهب لم أم مم سرنج بي موي موم يلم دي لي نيوخ تريزورم موي القرآن اك سنة زيون صلى الله عليه وسلم اك تيغين ييغا خامني موم دي لامبو غير مانا جاريني سي نيار يوي nee na rek mooy am amam waaye du alal du xaalis du wurus kon nag sëriñ Moustapha sa teewaay bii dal na xel ci ne lii liggéeyub sëriñ Tuubaa la liggéeyub lislaam la su doon leneen la tey jii lu jëmul ci yàlla jëmul ci sëriñ bi kenn du la fi gis kon nag ñi nga lay sant di gërëm gannaaw nag bi ñu koy tàmbali yàlla dafa dogal nga bokk ci ñi fi jiitu woon ñaanoon fi mu sotti mel na ne li ñu sàkkuwaat ci yow rek dafa mel na nag dañuy sos liggéey bi nag day door a tàmbali ndax tabax bi jumtukaay la woon rek waaye li taxoon ñu def ko dëgg-dëgg moy daara ji moy bëgg tambali ni kon nak nga ñaan ci bu baax sun borom tabaaraku taala def ci barke te sa ñaan gogi dana lay sëkk li nga mom la ci borom di mebet sun borom defal ko ci kaway njortam mbolo bari fi jam am fi sun boroom def ak ubbi ko ci ñi fiy jànge mbooloo mokkale fi alxuraan te jële fi barke it nag loolu mën a doon loo xam ne bu ëllëgee ñi fi génne dañ ko tasaare ci adduna bépp mu doon yiw woo xam ne du am mukk fu mu yem doon liggéey bu sëriñ tubaa nangu sunu borom nangu ko kon nak lool rek moy kaddu yi noo ngi santaat sëriñ bi bu baax di sant mbooloo mi fi teew ñëpp ndax lii kat wax dëgg yàlla des na ci yaakaare aw yiw kon nag jot gu fi nit def def naa ne yàqu ko li itam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp والسلام عليكم ورحمة الله نعوذ بالله في سر وفي علن من شر إبليس حيث انقضى وركض نقول بعد الابتداء بالبسم الله والحمد والصلاة ثم الحوق لا ربي أعني العبد يتم الخصد أعونك يا معين بك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين كل في باهي تدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول نيد نيد باكي طالب يب دي يكتي أكاد رك gu bàyyi ko ci sëñ Moodu mu am kàddu yoo xam ne dafay wara a jib ci barab bi nga xam ne fi lañ teew muy barabu alquranul karim te sànq rek kilifa bàyyi koo fi yëkkati kàddu yi mu fi yëkkati ñu ñëpp ñu déggante ko muy sëriñ Moustapha am sëñ El Baara di kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko fi def fi ay ñaan itam dalal fi xale bi nga xam ne moo ne fi njëkk a tàmbali tàmbali dalal ko ba siin miim ñaaneen mu barkeel ñaanal ko itam ne yàlla na bokk na na bokk ci ñi fi njëkk a mokkale muy doomi sëñ Moodu mi ci boppam mi nga xam ne moo ubbi daara ji di lu am solo loo xam ne yàlla na suñu borom nangu ñaan googa mu mel na mbooloo mi fi teew di njabootu sëriñ Darou Xasan ci kilifteefu eh, sëriñ Abdul Xaadir mi sëriñ Jiiri mu sëñ Bay Falloo ànd ak rakkam yi màndal sëñ Ibra sëriñ Cheikh Xatar ak seen doom sëñ seex Irada ak seen rakk yi ñu fi fekk ku mel na sëñ Cheikh Maam Say itam euh, teewoon na fi xëy na yeneen itte dab na leen bañ delluwaat ci ittee waaye meneen mboole teew fi muy rabitatu madarisul quraaniya ci njiital sëriñ Moussa Diop Ndar ànd ak sëriñ euh, Xaadim Touré ak sëriñ Abdou Diop ñu bokk ci ñi nga xam ne lépp lu ñuy yëngu ci wàllu alxuraan ci dëkk bi rawatina wàllu daara bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ko sëñ bi di saytuloo mel na ne loolu mooy waral seenu teewaay fii ci ubbiteg daara ji yi nga xam ne sëñ Modou taxawal na ko ci eh, ndigalal ay kilifaam sëriñ Moussa Diop Ndar war a yëkkati ay kàddu ci lu jëm ci wàllu googu taxawaayu daara ak soññee yam cey def ak la ci aju ak doxalin wa gannaaw ñoom naka ja ñooy yëngu ci wàllu googu te ñoom la ko sëñ bi féetale sëñ bi wax na nañ yëkkati seeni kàddu ñoom ba noppi. tàmbalee ko ci sëriñ Ibra Jëmb ak njaboot gi mu àndal di ay rakk ak i mbokki taalibe ak sëriñ Moodu mi nga xam ne moo woote jataay bii ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara bu baax te di leen balu xaq di leen bal xaq ñaan suñ borom boole nu baal di ko ñaan mu nangul nu koor yi nangul nu naafile yi nangul nu ñaan yi nangul nu tuub yi te may nu it nu fekkewaat ko at yu bari ànd akuk wér akuk tal akuk dolliku ci wépp yiw di nuyu sëñ wëllëre suñu àndandoo ci waar wi bu yàgg di sëriñ mi alhamdulilah alamin sant yàlla hmm? di sant yàlla bu baax ndax lislaam saa bu daloo julit ñëpp a daloo ñëpp ay sant ni nga xam ne ak kennam su wàññikoo tabkil aradi alayhim ka samawaati am na ñoo xam ne fi bàyyikoo asamaan jooy leen suuf jooy leen naka noonu it l'islam sa bu yokko asaman dina bég suuf bég ak mbooleem ku ne ci kaw suuf di ab te daare alquran fu ko samp l'islam yokku na fa l'islam daloo na fa mook jàkka yem ci loolu kon alhamdulilah rabbil alamin ñu sant yàlla mi nga xam ne defal na ndimbal sëriñ مودمي جيمي كوشي مصمب دار القران فاسيني لغير يالا سي تيري التوفيق سي رمضان سي قران دار القران نك دادي برب بو suñ borom da ko sàkk ngir di fi wattu téeréem bi ndax moo waxoon ne inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu la xaafidun ñun yàlla day ñoo wàccee téere bii waxit ne nun yàlla day ñoo koy wattu suñ borom moo koy wattu dafa sàkk ay jumtuwaay yoo xam ne ca lay jaarale wattu ga jumtuwaay mooy ñi koy jàngale ak ñi koy jàng ak barab yi yiñ koy jànge yi ñooy jumtuwaay yi nga xam ne ci lay wattoo téeréem bi daara alquran doon lu mag ndax alquran day suñ borom bam ca noppee da koo dénkoon lawhal mahfuz kon mooy këgg gu jëkk ga bam fa nekkee la ko soob mu wàcce ko ci jox ko seydina jibril mu sëf ko indi ko baytul izza muy barab boo xam ne geneen këggu la gu nekk ci asamaan juróom-ñaareel si tiim àddina mu wattu ko fa la la la ko soob mu do koy wàcc fii nag ci këggu suuf gi sotti ko ci xolub yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ne ko nazla bihi ruuxul aminu ala qalbik foofa la ko jëkk a sotti mu jóge fa nag di walangaan di leer goo xam ne di barke boo xam ne di yërmande joo xam ne di njub goo xam ne di saafara soo xam ne di waaraate woo xam ne nag mooy dem ci jaam bi di tasaaroo te ñenn mënuñu ko ñàkk te ñu ko am rekk ëpp nañ tawfiix fuuf ñi ko amut kon daara alxuraan di këggug suñ borom goo xam ne ci lay sàmme téerim bi di ko fa xamloo maas yi di ko jotlante ba bam koy sob moo tax daara alquran nekk barab bu tedd ndax ni alquran gënee tedd mbooleem wax yi ñu koy natt ci ne ni yàlla gën a tedd mbooleem jaamam yi kon daara alquran di leeruk suñ boroom di kàdduk suñ boroom di ndawul suñ boroom mënees naa wax ne alxuraan ji boppam mooy suñu boroom ndax kilif lépp di kilifa fa mu nekkut ba fa ay kàddoom nekkee kon maga fa moo tax melokaan wu ñuy wax ci suñu boroom ci tedd ak mag ak sell ak leer ak barke ak yëkkatiku melokaan woo ba tey mi ngi ci alxuraan karim moo tax waa asamaan ñun waa suuf ni ñuy xoolee asamaan di gis biddiw yi muy leer ci kaw ñu mën di wax biddiw wa nga nee ma nga nee ma nga nee ndax leer ga rasulullah nee wa waa asamaan it noonu suuf ci xol barab yi jànge alquran ñu di ko xàmmee di wax ne xolal barab be leer ga xoolal bële xolal bële moo mun tataraa li ahli nujumi kama tataraa tataraa li ahli sama kama tataraa an nujum li ahli ard wa suuf wa asamaan dañuy séen suuf gis barab yi jànge alquran ni muy leere dara alquran ba tayit gëna gannaaw bi mu nekkee kër yàlla gumuy sàmmi tirim bi mu nekkit barab bo xamne barabu tabligh la ndax yunus sallallahu alayhi wa sallam dafa bokkon ci mën ay yonent jotuli kon dara alquran foko ko dara ay jotuli la motax ñoom ñi wutu yunus sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf ci jotuli tirim bi ñi koy jàngale ak barab yiñ koy jànge ñooñu ñooy ñi wuutu yent bi ci melokaanam woowu nga xam ne mooy jot jot li muy dem te bañ a taxaw te keroog ba mu dee liggéey moom sallallahu alayhi wa sallam ba liggéey ñaar fukki at ak ñett ba muy xutba ci ajam gu mujj ga bokk nga xam ne ci la doon tënk mbooleem lu masoon a jàngale ci diiru ñaar fukki at ak ñett defoon na bu tënkee ba mu yàgg mu taxaw ne allahuma hal ballagt yàlla sama boroom ndax jottali naa yónnent bi saxaaba yi mat fukki junneeg nangam ñu ngi goor ñu àddoonoo ne ko ahakay ballagta risala wa addayta al amaana wa nasaxta al umma ahakay jot li nga moos yóbbante bi laa biire nga xeet wi jooxal nga kóllëre gi mu dellu di jàngali di tënk di jàngale di tënk ba yàgg mu taxawaat نيتي اللهم هل بلغت يو سما بروم نخ جوتالنا صحابه يو خوندو نيكو اها كاي جوتالغا بلغت رساله واديت الامانه ونصحت الامه مودا ديك بو ديك يالا بروم بي اي لوخوم نيكو اللهم فشل يالا سيدل نيو واخني غاتاج دوما جوتالنا ديف نكو بومي جوروم نياري يون مو خول مبولم كوفا تيون نلين فليبلغ الشاهد منكم الغائب تيجي كوفي تيو na ko jottuli ku fi teewut keroog la yeen saxaaba yi mission bi moom moo moom moom mu jeexal moom saxaaba yi kenn ku nekk jàpp ne mel na yow lañ ko jox mel na yow lañ wax jottuli mel na yow lañ jox responsabilité yëf yi bu mu taxaw loolu moo tax alxuraan dem fenn fu nekk ci goxi àddina yi moo tax alxuraan dikk fii fi réewum Sénégal kon simb bii tey jii dafa bokk ci barab yi nga xam ne dañoo fas yéene taxaw jël mission boobu ñoom it di jàllale mooy dem ci kanam kon yàlla na yàlla def ci barke te def ci ndimbalal zahir te def ndimbalal batin su ko defee ñi nga xam nag ñoom lañ ko indi fi ñoom muy waa gox bi ñu bàyyi xel bu baax ne andi nañ leen ngën ji ngën ji mbir ngën ji mbir andi nañ leen leer andil leen barke andil leen yërmande andil leen njub andil leen saafara raggi xel ak raggi xol ak raggi yaram andi leen loo xam ne dàmbe na ngëneelu addina te dàmbe ngëneelu àllaaxira andi leen loo xam ne mooy ruuxu diine mooy ruuxu diine lislaam mii bu fekkoon ne dafa am ab dat yu samp ay reen mu am ay car ami xob naat amit tuutuurike meññant di garab goo xam ne ni ko borom bi misaale ka shajaratin tayiba asluha saabitun wa faruha fi sama tuuti ukulaha kulla xiinin bi izni rabbiha garab gu mët sëkk goo xam ne ma nga sànni banqaas fu nekk banqaas yépp di joxe ker mu ànd ak tuurtuur yu rafet ànd ak meññant mu neex ñuy kerlu ci suufu garab googu di xéwlu ci meññant moomu garab gu am solo googu di lislaam nañ bàyyi xel ne reen ya téye ci suuf mooy alquran karim fii nga xam ne reen yooyu ñu ma nga téye ñu koy suuxat mu jàpp di naat moom reen yooyu nañ xam ne lislaam yi du fi jug mukk du gooy mukk du lax mukk du rot mukk du daar mukk ndax reen ya jàpp na ma téye kooku mooy alquran ñu fonk ko di ko jàng di ko jàngale di ci yar njaboot gi di ko dégg di ko jàllale loolu mooy suuxat reen yi fii looloo ngi am nag lislaam di des may wax ne foo mën a fekk lislaam mu muy muy naat ak a rafet te fënkuñu alxuraan xamal ne lee mu jóg fa waaye foo fekk alxuraan ñu koy jàng di ko jàngale di ci soññee di ci def wërsëg def ci xalaat jullit ñu jàppalante ca nañ xam ne foofu lislaam sañc na fa dootu fa jug mukk même bu niiroo ne garab bi lay laxit nañ ko xaar dana naat te dana yaatu te dana meññi <clears throat> naka noonu it ñi fa xam ne dañuy liggéey foofu ci suuxat reen bi ñoo fi bàyyi garabu lislaam gi mboolem keneen kuy liggéey ci lislaam te féete woo foofu dangaa féete ji jekk-jekkal rek jekk-jekkal ah ci car yi jekk-jekkal buy gën a jekk di walbati waaye nag lafa bay garab ga mooy mooy téere bi mooy ruux gi mooy ruuxu lislaam gi mooy reenu garab gi lislaam gi moo tax lislaam moo alquran moom fa mu féete ci lislaam jàng ko jàngale ko ak sàkkal ko barab ak ak jàppale ko fa mu féete ci lislaam mooy barab bu barab bu jan la boo xam ne barab bu xóot la bu sori ci li fi bàyyi lislaam ci te nag suñ borom day ba mu ko wàccee ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فاستمسك بالذي اوحي اليك دا فا نيكو نويال وخول جابال دي نوي نك ماغ ني خام نان موي لان نوي فوكو ديف سيتير دي جاب سام خيل دي جاب سام خول دي جاب لول ني واخ جيروم نياري لوخو بو فكي نا امنا كوكو موي نوي مو نيكو فاستمسك نويال بالذي اوحي اليك ليغا خام موم لا لا دينك يا محمد صلى الله عليه وسلم teg ci ne ko innaka ala siraatin mustaqim boobu garanti alxuraan rek la ko suñu borom bi jox loo xam ne boo ko jàppee ba mu dëgër bul laaj kenn bul taxawati bul geesoti xam ne dog nga yoon wa wéy rek la des ku jàpp alxuraan noonu la suñu borom jox garanti ne ko yow innaka ala siraatin mustaqim dog nga yoon wa siraat mustaqim fu mu jëm lépp lu yàlla joxe ci xéewal ak ngëniil yoon wa ca jëm mooy mustaqim mo jëm aljana jëm ci léré yàlla yi jëm ci barke yi jëm ci wërsëg yu sell yi jëm ci jëm ci ngeureumam yi ku jàpp alquran borom bi nee ko asiral nako innaka ala siratin mustaqim loolu ko waxon mu def mom rasulullah la yàlla wax moy ci nak la ko ci fekk ci ciono lépp la ko ci fekk ci mar la ko ci fekk ci génne ko ay bokkam génne ko ab dëkkam la ko fekk ci soké ko xex lay fekk la ko fekk ci ay ruux yu sell yu ay ruux yu yu daanu deret yu tuuru bañ yu foq ay fande ak ak ak i diñe ak i mar la ko ci fekk lépp mu def yàlla wax te mooy ngoy ngoy la def ba muy tàmbali mu tàmbalee képp seen soxna muy xadija benn jaam muy zeyd sennus ngone di rakk muy ali benn xarit muy Seydina Aboubacar ñeenti ñi képp dar ko waaye mu def la yàlla wax mooy te ba way deng boole wu koog dara keroog ba mu fi bàyyi koo di xutba xutba mbu réy boobu fukki junni saxaaba ñu ngi goor fi moom ñoom ñëpp jox ko nopp di ko lu wax ñu def ko keroog lay leen wax ne man noppi naa zikru laka wa li qawmik tey nag seen mission at jotna na waaye macha allah sahaba yamu yar ku nekk defe na yow rek la wax nga fab ko te wax ne bum laala ci suuf moo tax ñu jàllale ko fenn fu nekk muy loo xam ne ab jullit ci kaw suuf wala jaamub suñ borom mënu koo ñàkk ñi ko ñàkkit ñu ngi ci alkane ñu ngi ci taskare ñu ngi ci xol boo xamee du daal mukk ndax ala bi zikrillahi tatma qulub لذكر لك الا بذكر الله تطمئن القلوب خول ميغي داج ميغي ميغي دالي ميغي مانا ام دف تي جوبوك يالا سا بروم تي تيرم بي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشا ضنكا كوكا وان غناو سيني بروم خاجمال سك دوندو انا كوكا وان غناو رك سك دوندو ما يقك كون خيل مو دال خول بو دال جامي يرم جامي خول كوكو نينكوي امي تي ديني ديني مو موي القران الكريم magni dañ dañ la xass fenn fu ne diko wuti magni dan daan dem gànnaar wuti naar mu di ko ko jàngal seen jabot ñi dem fuuta wuti ko wuti ko jangal ñi dem ci dëkk yi nga xam sori won nañ ca waaye mënuñu ko wona ñak diko wuti fenn fu nek tay ku toga tok ba suñ borom def ko ni ba koñ bo nek ñu andil la ko ci sawet war nga ko jàpp de ndax loo mënta ñak lañ la andil tayit ay bi yemul ci wa innahu la zikru laka wa li qawmik waaye da caatik wa sawfa tusaluun des na leen ko laaj nag yàlla suñu borom moo yey xéewal gu réy nii ngëneel gu réy nii barke bu réy nii njariñ lu bare nii kuñ ko jox dana la ko laaj kuñ ko jox wëru koo sàggane <clears throat> kilifa nag lu mu la jox te ne la koy laaj boobu la sori de nag sa bët di dal la mu wax rek fas tam si mooy ci sa bët bu mu ci jóg sa xel bu mu ci jóg sa làmmiñ bu mu ci jóg sa nopp jóg ndax magaliku dénk naa la ko nekk walillahi almasalul aala kon nun ñiñ ko andil koñ biñ ko andil nañ xam loolu te téye ko andi na leen ngën ji lu ñuy sàkku ngën ji lu ñuy sàkku ngën ji lu ñuy wute leeru ko yàlla wa man araada al qurba min mawlaahu fal yaqra al qur'ana la yansaahu sëriñ tubaa ne ku bëgg a jege yàlla jàppal ji bu alquran قلت ومن يريد الرد الرحمن فليثبت تدبر القران كو بغ ما يالا جابال سي القران لان مو في اوب جيغا يالا لاك غريمم يون بوتي جيما غني القران الكريم كون جابوت غي نيو سي دارا جي مو جانغال لين كو تيار لين سي نخ بو الليغي لول لا سيني بوروم دي لاج كوم جوخ جابوت كو نيك قو ام فسكم واهليكم نارن بوروم خم خامي ني موي جانغال لين كو القران تي كو نديغال يالا تري يالا kon bokk mi ngi noonu sëriñ Moodu ñu ngi lay ndokkulee ci tawfiq bi nga xam ne am nga ko ba sa borom jëmale sa xel ak sa yitteeg sa wërsëg liggéey mel nii li sëñ Abdou Khadre daan wax radiyallahu an xaw ma jàmbaar kuñ dimbale laa xam lenn dug njàmbaar ndibal rek la borom bi di wax ni zalika alfadlul kabir gannaaw ba mu waxee suma awrasna alkitaba li stafayna ba mu jeex mën ko tëj zalika alfadlul kabir kooku mooy kooku mooy borom ndimbal ak njàmbaar néew fa ndimbal rekk fa nekk kon yàlla na yàlla ci ci baatin jàppale ci zahir sa bokk yi nga xam ñooy sey kilifa ànd ceeg yow jox la ci ndigal ñaanal la ci gunge ko yàlla fi liggéey bi sax di yaatu di yàkkali ko di naat di leer ba meññi ngir te lu yaatu ñoom ñëpp ñu fekki ko te ñun ñi ko fekke ñëpp ak ñi ci am yéen ñëpp ñu bokk ci am aw yiw ci barkab weer wii nga xam ne mooy weeru alxuraan weer wi nga xam ci nga ko bëgg a daloo ci barab bu tedd bii di Touba sëriñ Touba day li yàlla wax rek la def ne mu ne fastamsik dafa ne tamassaktu bil xablil matini murattilan wa bil urwati l wusqa lati hiya nuur ne maasikan bil kitaabi maska dari dama ne ko nuus ni nga xam ne gumba bu dem ba ci àll bu lëndëm xamatul fu muy jaar te bari ay ndog ment yuy fàdde njaacaar jékki-jékki ñëw roof ko loxo ne ko téel téel loxo ma génn la àll bii nam koy téyee سيرن بي نون لا ديف مان نون لا تيي القران موتا غيس بام كو نكو القران ديف ناجاني المنزل بالكتاب حتى غدوت مورد الزمان دبنا باغا خامني كوي روت كوي روت لير يالا كوني تي مان لاي سيتي داخ لا ناخ بارك تيري ام لا رب العالمين ام نانتي اي نديغالي واخ ام نانتي اي روي واي جيف ام نانتي اندانو كون يالا سن بروم gàttanañu ak tawfiixam saa su nekk def yëngu gi barke di jéggalu foofu kaddu yi eh, di ko feeñamale di jéggalu bu baax di ziare kilifa yi bu baax a baax di sàkku ñoom ñaan di leen ñaanal yàlla kon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su nekk fii si Daaru